nattub yàlla la bu dal ci kaw askan wi waaye dañuy wax nattu nag ñaar la benn bi yaa koy jëlal sa bopp li ci des suñ borooma la koy teg bii ñëw nag dafa mel ni noo ko jëlal suñ bopp ndax nit ñi dëgmal gi ñu dëgmal wërsëg jàpp ni manees na koo am ci kaw ak góor góorlu loolu dafa dëppoowut ak ni suñ borom tërale wërsëg suñ borom a koy séddale te yonent bi sallallahu alayhi wa li mu wax mooy yëkkati nañu xalima ga kayit yooyu doon bind fenn na kon dafa mel ni suñ boroom noppi na ci loolu mu mel ni nit ki ci biir juróom la suñ borom noppi ci wërsëgam la noppi ci góor lay doon walla jigéen noppi ci aw fanam noppi ci way texe la wala way texe loolu cëslaay la lu dëgër loo xamante ne ni ab jullit da ko war a yalfandoo téewul nag nga mën a respecté sabab yi nga xamante ne ni moom la suñu borom doxale di gëm ak jaam ñi ci yëngutu luy tax ërsëgoo wi la suñu borom bindal nga mën a am aw lay ci mën koo jëfandikoo man caa jot ndax suñ borom dafa wax ni bu leen sànni seen bopp ci lu leen di alal kon dafay mel ni nit ki lépp lu muy dugg war na koo seet analyser ko bu baax ba xam lu ca mën a juddoo su ragalee ni benn danger nga ci dafay daal di mu def ko ndax bu boobaa dafay mel ni moo ko tey mooy moo jël boppam sànni ko ci alkande te jumtukaay yi gone yi di jëfandikoo ngir dem ca bitti doonu jumtukaay yoo xamante ni ni méngoo na ak yu doomu aadama war a mën a sukkandiku ba dem ndax amul fenn fu ñu ko dogal ci mën koo jëfandikoo ci dem ab dikk ñi war a jël seeni responsabilité jëluñu ko bi ci jiitu mooy état ndax doole la joo xamante ne ni dañ koo bokk nu dénk ko mu war noo taxaw taxawaay boobu yi mel na ni manqué na moo tax lii am di am war noo taxaw ci am njàng war noo taxaw ci am paj war noo taxaw ci sécurité war noo taxaw ci ñu am ay barabu yëngutukaay yoo xam ndaw ñi danañ ci mën di yëngu te yooyu yëpp dafa mel ni am na ay manquement yu bare bare bare mu mel ni itam ni parents yi itam dese nañoo am taxawaay doonte mënuñu ci dara it waaye amoon na taxawaay bu waroon a jiitu laata yi di xew te mooy ni ñu dëkke ci biir kër yi baat yi génn léeg-léeg ci ñoom di jëm ci ndaw ñi tax na ndaw ñi xamatuñ fu ñu teg seen tànk ku am la ñuy jiital ko am la ñuy waxal ku am la ñuy yëkkati soo amut dañ lay béccingeel dañ lay sàggane dañ lay xañ yu baree bari yoo xamante ni ñu wóor nañu la ñàkk a tax ñu xañ la ko te ñi la koy def ñoo la waroon a gunge ci ñàkk goog yi ba doo ko yëg leneen li ci des itam mooy kilifa diine taxawaay bi ñu war a taxaw ñoom itam ci ndaw ñi ndax néew na nga dégg discours boo xamante ni ndaw ñi danañ ci gis seen bopp lu dul ni ñu yëkkatee seen kàddu rek ay liggéey la ñuy woote yoo xamante ni ndaw ñi ñoo cay def seen doole ñoo cay def seeni man-man waaye néew na ñu woo leen ci barab boo xamante ni nii suñ fa jógee danañ yëg nii barab bii dañ fee dolli ko dañ fee dañ fee jariñoo te bu ñu waxoon ak ñoom danañ leen dégg ndax nit ki bu fekkee boo wootee mu ñëw boo ko laajee àllam la muy néew néew mu jox la te li gën a seet ak dundam la lay jox mooy taam kooku boo waxee ak moom dana dana la dégg te it ndimbal li wut nag fexe ba wut ay jumtukaay yoo xamante ni ni nit ñi dañ ci mën a sukkandiku ba mën a sàmm seen ngor sàmm seen diine te jumtukaay yi weesuwut ay barabu liggéeyukaay ndax am na ñoo xam ne am nañ ay moyens yoo xamante ni nii mën nañoo créer emploi li ñu am ci xaalis mi ngi ci bànk yi tëdd yiñ ci am ci xaalis daanaka duñ ko exploité daanaka itam xawuñoo am soxla ci SONES bi dëgg-dëgg lu dul ni ku ci xaw a commencé tekki dara rek kooku la ñuy intégré loolu itam tax na gone yi nag jàpp ni réew mi mënee su fee mënee su fee tekkee te ginnaaw ku tekki luñ la considéré te seenu seenu tabax ci wàllu yàlla des na àdduna rek lañ leen wat ñoom dañuy daal di gis ni solution bi mooy mooy dem ci réewi tubaab yi ngir wuti dara parce que gis nañ wàccuwaay yi nga xamante ni moom lañ jox ñi am dara gis nañ itam wàccuwaay yi nga xamante ni moom la société bi jox ñuy jóge ci réew tubaab bi di yor dara mais nit ñi li ñu leen war a gëmloo mooy tukki yokkut wërsëg day wàññi fere mais yokkut wërsëg loolu tax na ko ni naa ngi faaw jëm ci àll bi loolu sama gis-gis la loolu ni man naa am du réalité mais man loolu laa gis ni mooy jafe-jafe yi am ba tax gone yi ndaw jëm ci bitti nga xam ne xoolatuñ fu ñuy teg seen tànk da ngay gis sax ni buñ duggee ci armée li fi mu ne nii barab yi ñu tabax ba ba marma ko yooyu bu ñuy siyaar yoon la ñuy siyaar mais bàmmeel yi ñuy jóge amul sax parce que dafa na jàpp nañ ñooñu du dara te loolu matérialisé gisee société di ko jëfandikoo loolu moo leen ci sóob waaye li ñu jàpp ni mooy mooy solution bi itam weesuwut muy état ci boppam doole ji mu yor te ñu bokk ko mu delluwaat ci monde rural parce que gone yi suñu jógee ci réew mi dem ci réew yi tubaab yi li ci ëpp seen yëngu ca tool ya lay doon ñu ngi leen di wattuloo raisin ñu ngi leen di wattuloo tomate ñu ngi leen di wattuloo ay mandri ay xeeti meññeent daanaka ci tool la ñuy liggéey wala ay am ambulant la ñuy doon ci barab yi ñuy tere la ñuy jaay di dàqante ak tubaab yi nanga ginnaaw yooyu ñu jàpp su fekkonte ne ni réew mi dafa am ay ay ay taxawaay ci monde rural bi rawatina ci wàllu ndox dafa jàppandi ba nit ñi mën a liggéey ci tool bari na ci dëkk yoo xamante ne nii suñ amoon ay forage rek seeni gone ñu dem ci taax yi te du loolu dong moo mën a liggéey sunu àll bi li ciy ñore ci ay ay xeeti meññet lu baree bari la mais day yàqu leneen li ci des itam mooy bi ñu amee indépendance ba léegi itam taxawuñ suñu ndaw ci ci wàllu xam-xam daanaka li li ñuy jàng kas néew jëriñoowuñ ko ndax Sénégal ba léegi mënagut a liggéey puso te bis bi seet nga dégg dañoo am indépendance dañoo war a bàyyi ak suñu bopp yow ku mënta liggéey puso boo daaxee sa sër bu xotti ko léegi bu ñu la bàyyi ak sa bopp foo jëm waaw kon dafa mel ni taxawaay bi mooy àll yi ñu am nañ ci wut ay jumtukaay yu tax ndaw ñi mën caa toog nañ leen wutal itam sécurité boo xam ne dana leen mën a aaral li ñuy am ban mën ko jariñu ndax am xar donc boo ko bëggee yow ci àll bi sa bakkan mën na caa des te amoo ba loolu du dem te it ki koy jël si itam boo ko jaayee sa bakkan benn sa bakkan dana ci des te yow boo ko loree ñu tëj la loolu itam mel na ni ay taxawaay la yoo xamante ne ni des na ku mel ne Ahmadul Badawi taxawaay bu am solo la taxaw boo xam ne mat nay fàttali ndax créé na ab industrie te wóor na mu ne bu doon dépasse bopp képp képp bu jëm ci boppam du ko taxaw ña cay liggéey ñooñu tëlu ñoo dem feneen taxawal na école ay centaine de personnes nga ci di jàng defar na barabu fajukaay kilifa ak diine gune ne bu defoon loolu ca gox ba mu dëkk ndaw ña ko yàlla booleel seen xel dina ci la neen waaye dafa mel ni ndaw ñi dañ leen di utiliser rek mais daanaka taxaw bi ñu leen war a taxaw euh, feeñu feeñut jàpp ni laaj na nag nu boole suñu doole mooy lenu man muy kilifa yi lenu man muy laaj suuf ak saytu état encadré leen te loolu depuis année yu bare bari sëñ Cheikh Mbacke ci doon wax bare bari bu ko defee état bi itam sens politique am ñi jàng wàllu agriculture nañ leen yóbbu ci suuf suñu exploité ko ñu jàng wàllu sàmm nañ leen wutal luñ sàmm mais ñooñu ñëpp itam fi mu dañuy bëgg ci paree toog ci bureau yi yori biig rek ci kilim yi loolu itam avancé lu rëm rëm yooyu daal jàpp naa ni moom ay jafe la yoo xamante ne ni mat naa bàyyi xel ci kenn ku nekk nag jël responsabilité sëriñ si nañ xam ne am nañ responsabilité boo xamante ni suñ borom a leen ko jox ndax buñ buñ àddoo nit ñi danañ leen déglu buñ wootee danañ leen wuyu buñ laajee nit ñi danañ leen jox kon am na lu leen war ci population état bi nga xamante ne nii itam doole la ñu ñëpp bokk ñu fal leen teg leen ci am na lu ñu leen di liggéey loolu lu leen war suñu diggante ak ñoom loolu itam buñ ko defee jàpp naa ni dana gën a woyofal mbir mi waaye buñ ko defutit kon yi buñ buñ wàññi ko fee ci leneen lañ jëm wala duñ jóg taatu garab yi duñ amal seen bopp njëriñ te sëriñ Cheikh Mbacke laa waxoon ne suñ teraangay doom yi ëllëg nanu gënal suñu teraangay tey kon duñ exploité gone yi di leen sëllax ci jaww ji noonu rek waaye dañ leen war a taxaw ba bu ëllëgee ñu mën a dem ak seen bopp lii daal mooy xalaat yi nga xamante ne ni amoon naa ko ci sama xalaati bopp la nag doon ni xay na mën naa bañ a doon réalité kaneen tam xëy na mën naa bañ a mën naa gis leneen waaye buñ boolee gis-gis yooyu buñ ko boolee danañ am solution bu pertinent boo xam ne dañ ci mën a sukkandiku wasalaamualeykum wa rahmatullah